Assalamu qui est xarit Macky Sall man démocrate là, quand je suis face à la démocratie mais surtout patriote là, face à la dictature et face à l'égoïsme Macky Sall man reconnaître ma sama président de la république Macky Sall de nga verrouiller pouvoir bi système bi nga utiliser doole ba yow ñi la andal ngeen élection. jiite réew mi cinq ans yi di ñëw waaye bul fàtte ni jaraloo ñu benn yoon ñuy woote di suñu dëkk jaraloo ñu benn yoon ñuy wax suñu ay mbokk suñu ay raq génn leen jàkkaarloog yow ndax bu perte di am Sénégal rek mooy perte jiite réew mi waaye bul fàtte ni incha allahu rabbi 2024 xaw ma troisième mandat xaw ma deuxième mandat ngay fàttali ko ni 23 amoon na te nit ki nag.

ce beau programme de Jotna Inch'Allah rabbi danañ la ba nga mettre en application dans ce beau pays à tous les militants et personnes de Pastef les patriotes que j'ai découvert dans ce beau projet jërë ngeen jëf bu kenn découragé nañu gën a redoubler d'effort ñu gunge suñu combat gunge suñu leader Ousmane Sok, bañ egg ci un bi bu ñu décourager, mukk ndax jàppaleen ni Sénégal bu bees war na mën a nekk waaye ñu suñu candidat Ousmane Sonko merci jërëjëf pour cet éveil de conscience bi nga xamante ni propulsé nga ko merci Ousmane Sonko pour cette fibre patriotique bi nga xamante ni nga ko ci ñun merci à Pastef les patriotes yéen ñi ngeen xamante ni ce projet rien que le fait que combat bi ñu mëne ko ak don de soi ak sa boo projet de bokk naa nga xamante ne ni walloo nañu ni doo toog rek di xaar sa réew defal la wan ma loo mën a defal sa réew waaye bu xaar sa réew loolu la mën a defal moom lañu war ci Pastef les patriotes ànd ak éthique ànd ak ak liggéey kese te yàlla rek tax yéen ñi ngeen xamante ne fekk naa leen ci projet bi te ngeen gëm ko mu sincère ci yéen jàppal leen ni bu leen bàyyi mukk ndax seen réew ngeen koy defal jàppal leen ni da ngeen yàlla. jàpp leen ni combat bi bu ñu ba mu yegg ci cëppaandaw ga bu keroogee coono yëpp dinañ ko fàtte da jàpp te tëwoo ba ndax lu jot dana ñëw dafa jox nag lu ñëpp bokk ñépp jàpp si te incha allah rabbi danañ ci continuer waaye nag mënumaa bañ a remercier sama borom kër bu jaar sama teg maa ngi lay gërëm di la sant waaye maa ngi lay tala sama ñaari loxo di sukk di la baalu ak yow mi nga xamante lu ma y a nga jàppale ma si lu ma nga bëggale ma ko lu mu metti teew di ma di ma di ma ne bu ma guddi doo nelaw guddi jërëjëf bu jaar sama te maa lay baal ak waaye xam nga ni bu sama réew soxlawee moo xam nga ma ci combat à vous mes deux petits enfants mes adorables enfants maman vous dit merci et s'excuse mille fois Tout ngeen de vous avez compris le beau projet maman bi nga xamante ne jug na engagé aussi ndax su ma ça saa yi ma daan leen leen ma ak mes enfants ngeen maman graaw ndax c'est pour le Sénégal donc cette fibre patriotique est déjà en vous yàlla na ngeen ci màgg te mais ñaan yàlla sa combat la bés bu ngeen demee ba toll âge bi ma toll su boobaa ngeen fekk Sénégal boo xamante Sénégal bu naat Sénégal prospère Sénégal boo xamante vous allez fier de vivre dans ce pays du ñu tàyyi du ma damm maa ngi leen ñaan na ngeen

Sous Boba, on va le partager avec toi vive le Sénégal La jot li ñëpp bokk l'avenir c'est maintenant Ouais, nous allons prendre tout le temps qu'il nous faut Inch'Allah. nous allah rabbi xam leen ni vive le Sénégal vive le Sénégal